siyaar naa la. Fall naka mu. baa yaayam jàmm. sant nañ baax a baaxee Fall. félicitations ci ndam li ngeen am démb. waaw ah, merci merci merci. ana Lac de Guiers numéro 2. Lac de Guiers bi nan ngeen ko waajalee Alioune Seye. waaw combat yi waajal comme ni ñu doon waajalee rek. bu ko raw sax. mais yàlla ñëw ak ay dogalam nii la waroon demee mu demee nii. ndax ndam du tuuti quoi sant yàlla rek. waa démb bi ngay dugg si ci làmb ja xalaatoon nga ni làmb ji fii lay mujj. wallaay laa musuma koo xalaat. ndax loolu lu ñu liggéey la lu ñu préparé woon la mais ndeke li ngay bëgg ak li yàlla dogal xam nga day ute daal xëy na nii la ko suñu borom bëggee bëggoon nañ ndam lu gën a leer lii mais tamit li ci làmb la bokk ci ndamu làmb la bokk ndax nit dina war a bëre nit sax du ñëw ñu yëkkati loxoom jox ko victoire asama ko xam ne ñëw na def ay effort li ne si làmb yëpp moo ko def ba yàlla dogal yi dañ ciy sant yàlla rek am ñu leen luñ ci wax ñëpp nee nañ démb géejawaay dañoo bëggoon jël seen indépendance ci Eumeu Sène mu tombé woon nag le 4 avril daa mel ni géejawaay mujjee naa moom boppam de. waaw mujjee naa moom boppam ndax ndam du tuuti comme ni ma la ko waxee tout à l'heure noonu la waroon demee mu demee noonu sant yàlla rek di ñaan yàlla xam nga Sénégal jëm kanam géejawaay jëm kanam daal waaw.